bunt la boo xam ne nag ci wàllu yëgu dong rek dama nekk ci diggante ñaar yoo xam ne yëpp lenn lu ci ne da mën a ñàkk ñu bàyyi ko xel lenn li mooy yàq gi nga xam ne tey jii wax nañ ci te yaatu na te li ko waral mooy umpale kilifteef muy lu am solo loo xam ne euh, ku bëgg jëriñu da am kilifa فكل من عدم شيخا مرشدا فشيخه شيطانه xeesu xasala ku amul kilifa rek seytaane mooy doon sa kilifa kon loolu day bunt boo xam ne siñaatu du ko ubbi muy loo xam ne ñun dong yi waruñoo doyal ci di ci waxtaan bu dee yàqu-yàqu lislaam man tey cant gi ngeen doon wax defarug lislaam laay wax ci barkeb seexul xaddim waaye yàqu-yàqu nit ñi moom moom am na sëriñ bi bëgg ñëw delloo si ngir ñu defaru waaye lislaam moom sëñ tubaa sowee na ko xare bu mës a am ci lislaam moom sëñ tubaa tëj na làmb yëpp tëj na xare yëpp yëkkati na raaya lislaam te dootul suufe ba mukk ndax ñi doon fetal jiyaat di uti ngànnaay lenn rek leen taxoon jóg ci turu lislaam dañ bëggoon lislaam gën a yaatu lislaam gën a ubbiku waaye bu ñu doon lim ñi ci faatu kenn xamul nu mu toll sëñ Tuubaa nag ba muy jóg di dem 1895 ba muy dem àndut ak kenn jënn jëmmam ji moo dem fukk yi ñu ko mayoon sax yoo xam ne dañ koy jàppale ci yoon wi nanguwu ko jënn jëmmam ji moo dem def na liggéeyam ba àggal léeg-léeg nga dégg mu ne naabat kitaabati anil xitaali léegi mu ne la xare boo mës a gis ci lislaam bind naa xasida goo xamante ne moo ko ëpp doole ñu koy jàng sëñ Muntaxa ne wax ji ñu daan wax ngir defar ba lislaam sosoo ba tey ñu ngi bind téere di jàngale di wax waaye lan la lijjanti waaye sëñ tubaab ba mu demee ci géej gi defub liggéeyam ba mu sotti xool leen ndaw ñi ñu ñëpp ay xale lañu ndax dañ leen a yeew ne leen kaay leen ngeen ñëw fii seeni xol moo leen indi buñ jàngee xasida seen xol yi jooy ndax bëgg sëñ tubaa loolu li ko def ci xol yi sëñ tubaa moo wax ak suñu borom suñu borom nangul ko kon nañu wax wax ji lislaam amatul problème umpale sëñ tubaa mooy problème bi na nit ñi xamkat kan mooy sëñ tubaab ndax kenn xare bu mës a am gis nga badar siyaatu wax na ko ñett téeméer la ñu woon ak fukk ñett rasulullah sallallahu alayhi bu mu yëkkatee tibbub xe tibbub suuf ba sànni ko ndanga ci la gañee xare bi jàngal jës bu nee na la lu jiitu ñuy xare ànd na ak ñenn ci saaba yi naan leen barab bii ci la diw di faatoo barab bii ci la diw di faatoo moo tax mu ne la waqaataloo man xad naxa hum mu safeehu sufaha xattaal xubaaru sataha benn jamaanin wakkat ñu ngi xeexi ji ñoo xamante ne yonent bi tàgge na leen ne leen diw fii lay faatoo diw fii fii lay faatoo kooku am na jaaxle kon jënn jëmm yonent bi doyoon na te pourtant mi ngi ànd ak taqwa ànd ak toroxlu ñu koy gaañ mu koy muñ la ko daloon tayif keroog kon day ñaan di ñaan di ñaan ba kaalaam wadd te jaaxlewul ñi ko wallu siit moo leen yilif séyaatu da ko tënk dafa ne dafa ne mën dafa ne mën nañu mën naa far kéefër waye teewut mi ngi toroxlu ci kaw suuf si muntaxaa mi noonu la mel wootewul dara ci bàttin wootewul dara ci wilaya waaye xam nañ ne jubóo naa boromam kon dafa roy sëñ tubaa ci li nga xam ne moo ñu amal njëriñ ñun donge yi yeewu dafa jot ci gën a ragal yàlla moo baax ci nun keneen kuy demaat géej amul de man zanna nii xayra xadimi Moustapha fa inna nii axdamuhu bi Moustapha waaye ba tey it man zanna annahu yakunu abada bi yurdihi bi lazika xidmati bada nafaytu zannahu bi anniyal xadim bi maa wan naa an mislikul xadim ku mel ni sëñ tubaa du am te du amati ba yow man xiyam jërëjëf waaw da caa yokk ne ko la in fuqta kullal awliyaa moo xaran fa xayrul baraya fi qurunil awaxiri ne ko da ko xool ba mu yàgg moom naar bi mu ne sëñ bi bu fekkee da féete wàll yëpp ca kaw waruñoo jaaxal ndax ki gën ci mbindeef yi moom mujjee ñëw kon boo mujjee ñëw te nekk ñëpp ci kanam waruñoo jaaxale ki nga ki nga roy mu raw ñëpp. jërëjëf. li lu mu indi ci man léegi tuuti muy ban politicien man mooy xam sama passé.

jële mouvement étudiant sénégalais ci clandestinité indi ko ci démocratique de masse nga xamné ne dañuy reconnaîtral euh, ñi nga xamné ne ñoo nekkoon dans la clandestinité leur caractère avant-garde ñu soog a ñëw nag ci démocratique de masse ak nuñ koy liggéeyee fan ci au niveau des de la des des cités universitaires au niveau des facultés mais loolu man ci la jàpp ba xëy ne gars yi damay dem daayira tey gars yi di ma attaqué ma jógee foofu ñëw fii ku may politique kay da nga may indi sëñ bi ndax dama jóge la ñëw ci sëñ bi te ñu ci bari bu ñëwee dinañ fi fekk loo xam dootuñ tal lañu bàyyi dañuy bëgg a des fii kon yaakaar naa ne euh, xeex bi lu yomb la lislaam moo doon loo xam ne am man mënoo ko jox sa bopp di walla kanam mënta ne wala doo am dara wala ñu lay ree bay àgg ci kekku mënta ne dangay ngay ñeme da lay ndax soo nee gëm naa xanaa doo ni gëm naa rek yàlla suñu borom noppi ci yow da lay seet ba xam li nga wax dëgg la am du dëgg donc waxtaan la yoo xam ne euh, fii ñu koy defee tey xat na ne lii dañ daan tëju di ko def xam naa ni fa muy gën neexe mottali ko nga xam da wax ba xaabaabal loolu ci tëju ba lay baax kon euh, yaakaar naa mën nañ ko dolliwaat tuuti rek tëj ko

ñàkk yi taxul woon ñu xam ne daara ji sax bis yëpp lay ubbi nga xam ne boo demee bañ nañ ni daara ji du tëj samedi ak dimanche yow doo ko gëmee ñooñu nag di ñoo xamante ne tey cant gii euh, sëñ Pape Assane di wax am na ci ñoo xam ne tey dox nañu ba yor ay entreprise di liggéeyloo ay téeméeri téeméeri nit jom ak yitte ak njub fii lañ ko jàngee am ci ñoo xam ne tey ubbi nañu ay atelier yor ci ay nit di leen ci former bañ yor ci seen teraanga loolu lépp di wane ni Sëñ Tuubaa moom lépp la boole tey ak ëllëg euh, waxtaan wi nag li ma ci euh, duggee mooy dafa am tàmbali boo xam ne ginnaaw cant gi euh, sëriñ Mouhamadou Mountakha dafa leeral li tàmbalee am ci jafe-jafe lislaam ak taxawaayu Sëñ Tuubaa ndax dafa ni gën gi mbindéef biñ ko noppee gis farweeri at rek mbir yi tàmbalee lëj am jaxasoo bu doy waar ba tudd jëfin yi nga xamante ni def nañ ko jëme ko sax ci njabootu yonente bi sallallahu alayhi ba ci ay yu góor ak jigéen nee bi saaba yi jàllee nag gaa yu baax yi ñëw di yeesalaat loole te sëriñ tubaab bokk ci ñooñee nga xam ne ñoo ko doon def moom nag itteem ci suñu boroom dafa am lu ci sëñ bi indi loo xam ne war nañ cee roy ndax tey ñaari misaal yi nga xam ne sëñ Moodu Muntaxa tudd na leen bari na ñoo xam ne ba ñuy ànd ak sëñ bi at yooyu la ñu te sëñ Abdou dafa waxoon ne sëriñ Tuubaa nee na def ko ni saaba yi defoon yorente bi de mooy li jafe waaye li ko mooy ku ko def ni saaba yi defoon yorente bi mu defal la ni yorente bi defoon saaba yi loole nag liñ ci boole mooy suñu boroom dafa tudd ñaar ci alxuraan muy muhaajirin ak lansaar muy ñu jiitu wax lam leen di fayee muy ngërëmal yàlla waaye nee na loolu nag yemul ci ñoom wala zidin tabahum bi ihsaanin te loolu ba fu àddina yem la kon loolu ñu booleeg sëñ Tuubaa moo waral tey suñ ñuy tudd waa démb ya di leen gis di roy ci seen pëstéef ndax sëñ bi wax na ko ci waxtaan wi nee na ñi jëkk ànd ak sëñ Tuubaa nee na yeggale ne leen fa saxaaba yooyu toll woon seen diggante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kon nag wa man awfaa bi hadiyi minallaahi suñu blaa defaroon bunt bi yàlla du fa tëje kon day wane ni yoon wi dox ak jaar ci ñooñee tànk yi ñu jaaroon ñu gis ne ni ko sëñ mu Mountakha daan fàttalee ci waxtaanam yi nee ñoom day liggéey nañu ba dem waaye seeni jumtuwaay ak seeni i ngànnaay seen i matériel yóbbuñ ko dañ ko fee bàyyi loolu nag mooy itte mooy pastéef mooy baat yi mu doon soññee mooy njub mooy ak taalibe mooy makaarimul axlaax ndax taalibe googu wax na ni su fekkee taalibe gi ci boppam ni mu war a mel melu ko nee na dana jafe lislaam li mu bëgg mu am ko kon suñu bi mu ñëwee loole la fiy def ñu gis na nag yeesal googu bàyyiwul benn fànn te itam mu mel nii ndaw ñi dañ cee am cër bu am solo te loolee Seydina Alioune ku ne xam na ni ba muy ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa ay atam yu néew la ci misaal rek sànq wax nañ ko ci waxtaan wi moom suñu yonent ci ñeent fukki at la ko suñu boroom yabal jox ko ndigalal woote te amul ñenn ci saaba yi ñoo xamante ni du moo leen féete mag ba yegg ci lool kon dañuy gis ne Moussa ibnu Umayra tey boo ko tuddoon ak li mu def ci lislaam ndaw la woon nga tudd Salman Faris ndaw la woon nga tudd ne Seydina Alioune ndaw la woon ba ci ñi nga xamante ni Zeyd ibnu Haris Abdoulaye ibnu Rawaha ba leen yonent salaasam di fasal ay drapeau di leen jiitaloo ay xare amuñu fanweeri ñu toj ay gox yoo xam ne boo bésu tey atteb lislaam lay am kon loolu yitte rek la ñi àndoon ak sëñ Tuubaa it tey dangay ngay tudd maam Cheikh ant tudd maam Thierno Birahim tudd sëñ Massamba tudd maam Cheikh Ibrahima Fall turu maam ngi tax ñu jàpp ne bi ñëw ci sëñ bi am nañu juróom-ñetti fukki at sëñ Massamba doy na ci misaal sëñ bee ko jox aw tur maam Thierno ba muy ànd ak moom ay atam yu néew la gën ngaa néew sëñ gaawaan bi ko sëñ bi jox daaru salaam ñaar fukki atam day soo a mat kon ñooñu ci ndaw la ñu def ba liggéey li ñu liggéey kon nag soññe bii sëñ mun Mountakha wax tudd ñaari sëñ Fàllu yi nee na noonee la amee misaal ñeneen ñu mel noonu kon nag ñun nañu bëgg loolu cër yooyu yootu ko te ñaan sëñ Tuubaa jàppale ñu benn bunt bu sëñ atu ñëwoon ma bëgg ñu dellu si waat ci wàllu pédagogie ngir nit ñi jàpp ko dara mooy euh, armée day am day am terre am air sallallahu alayhi wa commandant en chef des armées de terre et des armées de l'air ñetti téeméer ak fukk ak ñett yooyu ñooy armée de terre ci Seigne Abdou Karim Touré mu Seigne Touba ci lañu xamé ni Sina Abubakrin moy sen kilifa ci ndax da ko bind am nañ mbind mi ci dara ci euh armée de l'air Sina Jibril moko jité ñooñu ñëpp nag soo leen boolee seen kilifa mooy rasulullah sallallahu alayhi wa te gis nga ni mu toroxloo di ñaan ba kaalaam di wadd te ba naa Jibril demee ci sunu borom ne ko dama koy di ko sàkkul ndimbal da ko ndax moo ko sàkku mu ne mu ne kon sàkkal ci kilifa yi ñetti junni te nga dem wala li may wax sëñ Abdou Lahat ma ko wax nee na ba mu ne ñaadam ñaadam de mu ne ko mu fett su ko ñett yoon ne ko nit na ku koy dimbali da koy dimbali ci lu mu xam loola mooy ba muy ñëwee ak i malaayikaam ak nañu mel suñu leen rek ma leen mënoon a gis ak iblis saay-saay bi nekkoon ca colline ba ca àll ba waaye jullit ñi mënuñu leen woon a gis ndax ba ba ngay daw ndax ñooñu kenn ku ne mën naa faral lu bari ak ci àddina mbaa lépp kon loolu kooku boroom doole la te gis ngeen ko ni muy toroxloo noonu la sëñ Muntaxa mii mel na ngeen ko bàyyi xel bu baax dafa wootewul lenn simplicité rek la wote waaye li lay xamal ni boo nga koy déggee mi wax sa nga defee ni dama dégg ñu sëñ bi sëñ bi tey sëñ bi dafa àll jégewu ko sax parce que expert la boo xam ne c'est un professeur agrégé xoolal fursa bi mu jël ci sa ñaari sëñ fàll yi pour jàngale ba wax ni ku bëgg a mel ni ñoom wala ku leen war a remplacer ëllëg dans le futur ñu xam kooku kooku kooku il est serein li tubaab di wax sérénité la ak sago ak dal xam bu baax la may wax demal léegi dama leen di laaj xare yi ngeen ma a gis ci lislaam yépp évaluer leen ma ko wax ma ci ban xare moo ci am résultat bu toll nii wallaahu yansuru nii wal falaqu tatbahu nii fil barri wal bahri za nafin bilaa dara amul kon yëf yi du jóg reyante jëf yi benn noonu moo ne mooy sunu sunu melokaan sunu bëgg àdduna sunu sunu sunu sunu bëgg daraja ak sunu ñàkk xam kilifteef yooyu nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy bakkan ak adduna ak bànneex ak seytaane noonu yaa kon ku doon jàmbaar ci armée yi te doonoo jàmbaar ci nangoo bàyyi bakkaar doo jàmbaar ci lislaam day sa su jàngu la kon ku dem nax ju fekk ko fa kon li ñu bëgg jàngale sëriñ bi mu wax leer na jooyi yi lan la mais def sëriñ bi sëñ Tuubaa moo taal saxaaru ngërëm loo xamante ni l'islam lu nar a defaroote ci l'islam ci sëñ Tuubaa lay doon sëñ Abdou wax na université bi sëñ Tuubaa da ko bind sëñ Tuubaa wax na ko bil Moustapha lii banaal xudduusu madrasatan bihaa yazulul azawul jaxlu wal kabadu madrasatul xudduus suñu borom moo ko ko may te ci la ak réer di deñee ci la ñuy jëfee ndigal ci la ñuy bàyyee tere coono it ci lay jeex bu bëgg dégg waxi sëñ bi jooyi lislaam mooy tey jii nit ñi liñ tal tamu mu doon goree ci nun doon ñàkk sant ci nun doon loo xam ne buñ jàkkaarloog sëñ tubaa dina doon yaraange ci nun moom la ñu bëgg a fegal moo tax mu ne nañ bàyyi bañ a tal dara te dellu si lépp lu ñu tal lu dul lislaam rek du suñu wàll rek la xool fi ñu toll ni xam ne lislaam fi ñu toll ni drapeau l'islam jóg na nag ñun nag nañ bokk ci ñu koy animé te xam ne Muasim ni Jabal li mu def li muy rëy rëy at ak ñett la dund sëñ Lamine Diouf tudd léegi ki nga xam ne Musab ibn Umayr suñ ko tuddee xoolal kër gi mu bàyyi woon Makka bokk yi mu bàyyi woon alal ji mu bàyyi woon jox boppam rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba mu gàddaayee di xale bu ndaw di jàngal waa madinatu munawwara alquran nga xool loolu lépp ak sacrifice yi def ak ñu mokkaloo alquran ak li mu def lépp nga xool lan lan lan la mujj oxor keroog bañ koy muur bi mu faatoo ñu koy muur mbalaan ñu koy muur bu muuree bopp bi tànk yi day feeñ bu muuree tànk yi bopp bi day feeñ rasulullah la alayhi wasallam nañ muur nañ muur bopp waaye na leen am na gët gët yi gët yi gët yi parfum maanaam xet xet gu neex boo xam ne fii ba adduna ba ba ñu lem dënd bi dina neexal jaww ji loo xam ne keroog ci ci ci ci ci mois lay jóge ci ci ci ci ci ci Musab ibn Umayr ci lay jógee ndax shahid gi mu shahid keroog fu ñu tuddee turam rek ci kaw suuf ba ba ñuy lem dënd bi ay gëtt gu neex muy ay parfum ay xeet yu ñi ko mën a xam danañ ko xam Musab ibn Umayr loolu ko ko may kon yëf yi du caagi na da ngay séntu pay bu teew ndax sëñ Muntaxa soññe na fii ci jumaa ji wax ne yàlla suñu borom su fekkoon àdduna tollul na ko ni laa fu yow kon waa bani Israël yéefar yi duñ fi am duñ fi ay duñ fi am lu tol nii potu ndaa sax du leen ko fa jox waaw sëñ Abdou ba tey soññee boobu la benn benn borom xaalis bu bari bu yàlla teral ci murit yi bi mas naa ñëw ndakaaru mu yóbbu ko mu wax ba yóbbu ko pour mu léemal ko këram ko di ko wanaale mu demee ba woon ko ba mu koy won yëpp sëñ Abdou Khadre ne ko xanaa ah, xam nga ni bu bu yàlla suñu borom bañul woon ngëmu jullit ñi rëng-rëng kii yëfari seen kër yi su àdduna yi yaa wurus yaafat lay doon waaw kon kon sëñ àll bu may tëj bunt boobu li may wax mooy sëñ Muntaxa dafa bañ nii ñu commencé tasaare mbooloo mi di gis ñaar ñu bokk ndey ak baay di gis ñaar ñu gis ñaar ñoo xam ne ñu bokk pas-pas politique ñu tàmbalee noonu ak intérêt sëñ bi dafa bëgg suñu xel dellu revendication syndicale rango ñu yàggoo ko loolu koy far dëgg la nañ ko réglé nañ ko réglé nañ am fulla ju toll nii xam ne sëriñ bi am na programme mais ni ko amul programme ku jóge fële dara leeru ko man mën na maa comprendre damay tëjee sëñ Aliou nit ku jóg naan ma man ne maa mën a soppi jamono waxuma réew mi sax ñi naan réew mi ñi naan quartier bi ñi naan région bi ñi naan nangam waaye ñëw di ma promettre ne yaay soppi lépp ma bàyyi la ma jàppoon di la fekk si te ñaari ñaari soxna ñaari soxna laa wax bu la yàlla dogaloon sax nga bokk ñi ci gën a jàmbaar bu mën a am ñaari bu dee ñoom jabar lañ koy tuddee ku ci mën a am ñaari jabar ci ñi ci gën a jàmbaare ñemewoo leen boole génn kër yow kër googu boo leen fa boolee doo ko mën lijjanti ba noppi bëgg maa dikk yow yow yow mënoo lijjanti loolu nga bëgg maa dikk ne dinaa lijjanti sa quartier wala naa lijjanti sa réew wala naa lijjanti Afrique nañ bàyyi naxaate yi te defar suñ jëmm yi ku mënta defar boppam du defar dara waaw defe nañu xamuñu dara waaw waaw te yow te yow moo kon nañ am nañ am fulla ju toll nii xam ne nit ki defaru boppam la mën a lijjanti waaye suñu borom mi moom jamono moo mën a soppi jamono boo defaroon nag da mel ni seen na Seydina Aboubacar bañ ko nee kaay defar jamono kaay nekk ci kanamu gars yi rangooñam daa sotti ko kon gënalu ko woon ab yan la woon waaye koo gis mu koy laaj du dara mhm. mënta lijjanti boppam nañ topp sëriñ bi kum joxoñ ñu topp ci ginnaawam te loo ñu digal ñu def ko mhm. am kilifa gu doyee di sax moo gën ñàkk kilifa dëgg la ñàkk kilifa du dara mhm. sëriñ bi bu la jiitalee ci benn expédition ne sëñ bi ne diw dama jiite expédition sàngam kenn du ca teg keroog moom ne Seydina Aboubacar na jiite julli. Seydina Omar mi mi yéex a ñëw bëgg faa taxaw. waaw seen mu xaw a mel ni du yu yéex rek Seydina Omar bëgg faa taxaw. mu ne ko mukk kii la kii la. kon lu mu def noonu la. ba war a nekk euh, njiit da ko dafa dafa da ko may ko saraxuñu ko da liggéey. moom moom i keroog bi nga xam ne ñu ngi waajal suma yoon si wanag bi. lu gat gat lii siit yi wax nga xam ne du waxu tus ndax se se se se sëñ Muntaxa wax na ko ci wàllu si naaw seen ak lu ñu fi mën a ay rek la diggante bi lu mu xat-xat ak lu mu gaaw gaaw laata ñu koy yóbbu jox na boppam si naa si naa bëkk si naa ci bopp ñooñu duñ jaawale ñooñu duñ jaawale ñooñu moom ñuy wax yëpp ay yéeg yooyu bu moom xam nga ay euh, foofu moom si yaatu yonent ab yonent kenn du jaawale ci moom ndax dañ lay teg ñetti melokaan yoo xamante ne danga naan melokaan yii de du mën a ñàkk ci yonent sidq amaanatum ak tabliix ñett yii dalay lay dimbali ba bu ñu la nettalee ne la yonent yàlla daawuda def na nangam bu wax ji jubut yow di ko mën a jubbanti yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu la nettalee ne yonent bi mus naa wax nangam ñuy natt di xam addis bu wér ak bu wérul am na loo xam ne bu ñu ko bu ñu ko déggee dinañ xam daal li nga wax wér na wala wérul sëñ mag bi sax nañ la nettali dara ci moom nga ni umu te xam ne ko ko wax ndax kafe gi daa bari wala nangam kon foofu laa ji yam jërëjëf comme mel ni li ñu jot a wax dégg nañ ci ñetteelu ki seen Mouhamadou Mountakha doon wax mooy koo xam ni talul lu dul boppam talul lu dul bakkanam talul lu dul àdduna te mënalul boppam dara àdduna mënuloo ko dara kon koke yang ngi suñu borom musal ci doxinam wowe te ko suñu borom to lolo itam sama ndaxaa bëgg na la gindi ba nga nek ci lila amal njëriñ te di nga ñooñu kon seen bakkar lañ kal ak aduna te àdduna mënul leen dara l'islam nak li galankor gàllankoor sëñ wax ni l'islam mom du du galankor waye itam du delu ginaaw waaye nit ñi ci war a jariñu ñoo ci dul jariñu te la leen ko yóbbi nag Seydina Aboubacar mi fi njëkk a wër Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee xalifa li gën a mooy dafa mel ni jullit ñi tudd ay jullit ci kaw waaye mel ni xaaj bi beneen doxalin lañ yor ndax xorobu ridda lan moo ko indi mooy ñoo xam ne alal moo gàllankoor mooy asaka ko joxe Seydina Aboubacar ni leen. lu toll ni jataŋ bu ñuy jataŋi giléem koo daan jox rasulullah sallam asaka mu jóge fi nu ngu doo ko joxe naaxare yow ba nga joxe ko ba mu diisoog saaba yi suñu borom bëgg leen a wan dara yi Seydina Abubakar ñam diisoog ñépp mel ni ku ko xamal ni ko day mel ni ginnaaw wax yu wàcce tut ginnaaw ndimbal yu bare bare yoo xam ne dara jël rasulullah sallam sam moo tax suñu daan ko wàcce wax yu wàcc tut mel ni la kuy xalaat ni kon xarab jëru ko Seydina Abubakar nii leen su man dong maay dem dinaa dem ci xare ba ba ñu xamee ne doog ko caa fekk ñooñu li ñu doon gàllankoor alal la waaye ba Seydina Abubakar jógee ba xare Musaylama ba daan ko xare ñeneen ba daan ko ci ëllëg sa dañoo gisaat dëkk yu bëree bëri dikkaat naa ñu ngi indi suñu asaka mooy ne kon ñooñu defaru gi nga xam moom la islaam soxla ci nit moom moo nekkul ca ñenn ci ñoom defar googee nag la bi bëgg ci ñoon ba nga xam ni fu ñu mën a toll dañuy doon alal lislaam fu ñu mën a toll dañuy doon ñoo xam dañuy dund lislaam dalee dañ koy dund nag ci biir ak ci biti dund ko ci biir ak ci biti moom mooy ak taalibe sëñ bi xam ne leen taalibe nag mooy makaaramu axlaaq benn di euh, yaakaar naa ni euh, kaddu yi sëñ Mouhamadou Mountakha daanele rek man ci laay ñëw Euh, muy muraaxab bi si yaatu wax sànq ndax dafa ne li tàmbalee ci gone gi tàmbalee ci julli ba ak waxambaane ak mag moo xam ni sax mënatu ko ñépp nee nañu xoolaat suñu bopp nee na doxin wi bu ñu ko bëggee faw dinañu xoolaat suñu bopp te nee na loolu bu dul dara sax ñu sagalee ko sëriñ bi sagalalee ko lislaam ci jëfe ndigal yi ndax neena na ñaar yooyu rek moo fi nekk mooy imbisaal awaamir ak wajtinaabul manaahi te nee na loolu nag war naa mën a yomb mu tegaat ci waxtaan wi ci bi mu koy tëj lu am solo loo xam ni nee na buñ ci góorgóorloo rek dinañu dimbali ba fi ñu bëgg àgg ñu àgg fa ndax tudd na makaarimul axlaax wax nañ ci sànq tudd na ak taalibi waaye tudd na ak njub te nee njub googu nag ñaari nit rek bu ñu dendoon soo leen xoolee di nga xam ki jub ak ki dëng te ne njub googu boo ci nekkee dalay jariñ di la jariñ ci àddina sax lay tàmbalee alaaxira taxul ñuy wax muy loo xam ne Sëriñ Tuubaa daf ñu ko digaloon téere yi nga xam ne ku koy jëkk jàng ci ngay dale moom la tàmbalee yaa ayyuha sibyaan laa tastaxilu anil huda wa bil hulum waxaat ne it na xam ne giñ naa ci yàlla suñu borom ne ne amul lenn loo xam ne dana jariñ nit bu tàbbee ci bàmmeelu lu dul ak njub te sëñ Abdoulaye dafa waxoon ne nee na alxuraan bi yàlla wàcce na ko jëlandi bi waaye ci nit ñi rek la jëm inna anzalna ilayka kitaab bi bil haqq daat cee teg ne fa man ihtada fa nafsihi wa man dalla fa innamaa yadullu alayhaa wa maa anta alayhim bi wakiil kon nee na jub bu ñu ko defee suñu bopp la ñu koy defal nee bu ñu ko deful it nee na ñoom rek lay wàññi kon nee yu am solo ngi noonu yoo xam ne nee na itam nañu góorgóorlu ci ndigal yi muy jaamu yàlla tudd na julli di ko def ci waxtu wa te ànd ak làpp ak lépp lu baax loo xam ne mooy ponki lislaam yi nee na loolu ñu def ko sagalee ko sëriñ bi te day dellu ci tàmbali waxtaan wi euh, bi ñuy um koor gi waxtaan wi def ci jumaa ji dafa ne woon sëriñ bi moom suñu cant suñu digganteek moom lott nañ ci dañu koy bàyyee suñu boroom rek mu fayal ñu ko ne nit nag su la defee loolu lépp Euh, nee na nga war a mel rek mooy la sëñ Abdou waxoon daal ne sëriñ Tuubaa melaw géej la yor nee na géej nag lépp luy tàbbi ci biiram nee na da ngay def ndox nee na àtteb ndox it ngay yor nee na mooy waral bu géej gi dem yóbbaale la waaye lépp lu ci tàbbi te doonoo woon ndox soog cee tàbbi nee na bu géej gi fere ci kaw rek la lay bàyyi te nee na ku ci tàbbi na ci tàbbee dëgg na nga ci tàbbee pastéef na ci tàbbee ak njub nee na ku ko def sa tey dina yéwén sa ëllëg dina yéwén defe woo ma ko daf maa leer kon nag yàlla nañ ci sëñ dimbali ci melokaan yi nga xam ni moom la sëñ bi soññee ba ñu nekk ci ba li ñuy sàkku muy ngërëmal sëñ Tuubaa mu mën ñu ko yombal